Euh, li ñu fa dajale tey euh, at atelier bo xam ne la woon ñu waxtaan ci li nga xam mom la président de la république Macky Sall liggéey ci gox goxaat yi ci réew mi. parce que nak dafa ñëw fekk fi ñaari Sénégal Sénégal ñi ci kaw ak ñi ci suuf mu ne moom dafa bëgg Sénégal bi ñëpp ñu yam nek ben parce que mom ka dafa dafa wëtuur Sénégal bi avant ñu fal donc xam na les réalités yi nekk si bi mu indi fi PUDC indi fi six marqueurs sociaux PUDC. Puma indi fi DER indi fi une sécurité familiale une fi Promoville muy yoo xam ne tey waral le président ñu considère comme le champion de l'équipe territoriale parce que si vous demee ci àll vous ma dëkk man di nga gis ne léegi village yëpp dañ leen électrifié fi 202 villages électrifiés a 440 villages électrifiés par an alors qu'avant, c'était 84 euh, villages par an taux de de taux tout électrification rurale nous mu ñu c'est 24 Il y 59

ñoom la ñuy euh, moom la ñu bëgg a jot mu suñu ñu fal ko maintenant ñu également ñaax ñigee jigéen ñi ñoom ñoo yaay yi primo votant yi ñoom ñoo leen jox jigéen ñi également waxtaan wax seen seen i doom ñu gis li président liggéey ak li fi président bëgg yóbbu askan wi parce que dañ ko jàppee comme l'homme de la situation mu incarne espoir ñu di plan d' action nag plan d' action boobu li ñu def tey mooy atelier bi mooy activité bu njëkk am ben une activité bu ñuy wajal diko ko ci 46 départements yi moy que ne kenn ku ci nekk département ba nga nekk ñu waccando dem demander autorisation de marche pacifique dinañ marcher pacifiquement ba ci préfet bi jébbal ko la résolution bu résolution ni suñu résolution moy lan wax président mu nekk candidat parce que nak président dafa momul boppam président li ñu wax en communication éthique de conviction éthique de responsabilité mom conviction yam mo néwon du dem mais ñu responsabilité am ndax ñi nga xam ne dañu yaakaar ci moom dañu bëri may na ko tey jii mu mu samp ndëndam te nag la constitution moo charte nday réew mi moo jiitu kaddu serment moo jiitu kaddu kon moom président de la république lii ko jigéen ñi bennoo yi di woo et de la grande majorité dañ koy ñaan mu fekk suñu si ndax ñun ñaan nañ ko ko Sénégal yi nga xam ne seen biir kër toog voté wuñu ña nga toog ña nga ko ci woo nañ ko ci loolu askan bu bëri ci woo nañ ko ci loolu kon nag na nekk candidat képp ku conseil constitutionnel yoo xam ne mën nga nekk candidat nekk candidat ñu dem tranquillement ba a yàq Sénégal bii ndax Sénégal dëkk jàmm la ñu dem voté ji ndax xam nañ ne kenn mooy fal ginnaaw yàlla mooy askan bi nga xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi téye sa carte électeur di xaar tànn sa tànneef ba la gënal. jërëjëf